Okay, alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ñi ngi topp suñu téere bi di Minhajul Muslim bu Abubakar Al-Jazairi ñu yegsi woon ak yéen ci li nga xam ne moom la ñuy tuddee al aqiqa mi ngi noonu bu dee ñu yor mool bu bees bi ñu ngi ci deux cent quatre-vingt-deux bi su ko defee ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ci tawfiq bi nga xam ne nii defal nañu ko te muy ñu bàyyi suñuy kër toog ci néegam di fas yéene jël benn bind ci suñu diine bokk na lu romboon ci xutba bi passé rasul sallallahu alayhi wa sallam mu ni amul benn jullit buy génne këram jëm ci néegu bi yàlla ba ngir am lu mu fa jàngi wala lu mu fa jàngale ji lu dul ne yàlla dana ko may yoolu aj makka loole ci jamono ji nga xame ne nii nit ñaa ngi tàggoo di jëm aj kon lu am solo la lu ñu war a bàyyi xel ñu ngi profito it ci mbokk yu bari yi nga xam ne tàggoo nañu jëm ca woote bu tedd boobee ñu ngi ñaan mboolem ñi yàlla tànn ci jurit ñi ngir ñu teewe ko yal na yàlla yombalal leen seen aj ca nangul leen ko te it boole ñoo ñoom ca yool ba mu leen di jagleel kon bu dee nii yaa ngi topp sa téere day wax almaadatu saaniya al aqiqa hiya shaatun tuzbahu lil mawlud yawma saabi'i wilaadatihi li arab di tuddee aqiqa nee na mooy gàtt ba nga xam ni moom la ñu reyal xale ba ci bisu juróom-ñaareel ba ñun ñu koy tuddee fii gàttum tudd mu ngi noonu su ko defee loolu suñu borom jalla wa ala gis nañu ne moo teral doomu aadama teraanga boo xam ne bu ñëwee ci àdduna am na teggin yu yàlla tëral ñu war ko koo teeroo bokk na ci lii ñu nar a jàng reyal ko ab gàtt rafetal la nga xam ne muy turam noonu it bis bu fi jóge woon it noonu la lislaam santaane ñu war koo jël sangu ko sangu ko jullee ko rafetal ab dencam lii lépp lu mu lay jàngal mooy doomu aadama sa dund yépp danga ko war a tënk ki la nga xam ne mooy lislaam te mooy won di la won ni lislaam amul lenn looy dugg ci sa mbiru dund loolu teete ne la fa nga ca war a jaar bokk na ci ki yàlla wërsëgal doom ki yàlla wërsëgal doom gàtt boobu ñu koy reyal lan mooy atteem moo tax mu ne xukmuha lan mooy attee gàttub tabas gàttub tudd al aqiqatu sunnatun muakkadatun lil qadiri alayha min awliyaa al mawlud li nga xam ne moom mooy gàtt ba ñuy reyal ba ñu rendil xale ba ñuy tudd nee na sunna la boo xam ne bu war la sunna bu war sunna bu ñu feddali borom xam-xam yi dañ cay dolli naan kal waajib mooy dafa mel ni lu war la ca mooy sunna boo xam ne bépp jullit bu ko man amul droit di ko sàggane doonte ne nag yeggul ci farata waaye daal ku ko man war nga koo defal sa doom ñan la war mooy wëli yu xale ba na doon baayam mi ngi dund defal ko ko baayam dundul yaayam am na kattan defal ko ko wala rakki baay ak magi baay wala hatta magi boppam képp ku am kattan daa di koy rendil xar moomi wa zalika li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi kat sallallahu alayhi wa sallam moo ne woon kullu gulaam rahinatun bi aqiqatihi bépp xale bu góor bépp liir bu góor ña ngi ko tayle lënkale ko ak gàtt bañ koy reyal tusba tusbahu anhu yawm yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhallaq ra'suhu mu ne ku mel noonu daañ ko reel gàtt bi bisu juróom-ñaareel ba daañ ko jox tur bisu juróom-ñaareel ba daañ ko wat karawam nga bisu juróom-ñaareel ba loolu mbokk borom xam-xam yi amuñu ci ixtilaaf lu dul ci ku jigéen ki am doom bu jigéen ndax dana ko wat wala du ko wat am ci ñoo xam ni dañoo jël ci règle générale sharia bi tere wat jigéen ba ñoom dañ ne liir bu jigéen kenn du ko wat donte ne ni borom xam-xam yeneen yi dañ ne yonent bi alei salaam dim ne kullu gulaam am na beneen xadis naan kullu mawlud mooy képp ku ñu jur te kon donte ne borom téere bi moom li muy défendre mooy xale bu jigéen kenn du ko wat waaye it maadaam yi ixtilaaf da caa am te rawatina suñu réew mi borom xam-xam yi téere yi ñu jàng ñoom dañ ni góor ak jigéen yépp dañ koy war a wat loolu it boo amee sa doom bu jigéen nga wat ko loolu yi dara nekkul ci loolu kon buñ la laajoon lan mooy atte sa doom nga reel ko dañ naan loolu day sunna la boo xam ne ni sunna la bu war waaw sunna la boo xam ni bu ñu feddali la mi ngi noonu ñetteel bi mooy xikmatuha ban xikma moo nekk ci rey rendil sa doom am xar mbokk xikma mooy loo xamee ni nii doomu aadama bi da koy sawarloo waaye julit day jaamu yàlla même bu xamul xikma ba du tee moom da koy jëfe moo tax mu ne min alxikmati fi laqiqa shukru llahi taala ala nicmati lwalad bokk na la jëkk nga am doom dem ren di ab gàtt jaamoo ko yàlla la nga ciy jëkk jublu mooy sant yàlla jalla waala te mbokk aka bari ay couple yoo xam ni li ñu war a am ci àdduna yëpp am nañ ko waaye sëy ba ñu ngi noonu yàlla mayu leen doom kon doom jooju la yàlla may nga xam ni nee na moo koy may ku ko neex ak nu mu ko neexe gàtt ba ngay jël di ko rendi yaa ngi ci jublu sant yàlla delloo ko njukkal ci loolu nga xam ni moom la la defal ci xéewal ñaareel bi wal wasilatu lillah mi ngi noonu azza wa jal fi xifzi al mawlud wa riayatihi bokk na it la ngay jublu ci rendi la nga xamee ne mooy gàtt ba mooy mu nekk benn jokkoo booy sabablu di wasila booy def sa digganteeg sa boroom ngir xale boobee nga rendil am xar suñu borom yàlla sàmm ko suñu borom yàlla barkeel ko indi na ci ñaari xikma yooyu waaye it bokk na xikma ba ca gën a màgg mooy wone jébbalu gi nga jébbalul yàlla ndax bu ñu xoolee cosaanu lii nga xam ne moom mooy am doom renjil ko gàtt ma nga cosaanoo woon ci ibrahima alayhi salaam moom la yàlla xañoon doom ba mu paase juróom ñetti fukki at yàlla may ko doom ju baax suñu borom tagg ko mooy doom boo xam ne xalim la suñu borom ne ko demal nga rendi ko Ism Ismaïl alayhi salaam ni baayam ba Ibrahim defal li la yàlla sant ñu ànd ba Mina fa la ñuy sànnee jamra ya Ismaïla tëdd Ibrahima bocc paakaam dogu pour rendi ko suñu borom yàlla woo ko ne ko li ma la santoon dëggal nga ko daal di koy jox am xar mu rendi ko ci place am loolu it képp ku am doom di ko rendil gàtt yaa ngi ci yéene feeñal jébbalu goo jébbalul yàlla te mooy bu doon yàlla daa dig la ñu rendi suñuy doom it dama koy rendi waaye it yaa ngi sabablu di def wasila ngir doom bi ngay rendil gàtt bi déggal yàlla na ismaila déggale woon boromam jalla waala ba en tant que xale mu nangoo tëdd ne bàyyi rendi ma comme yàlla moo ko dégle loolu kon bokk na it xikma ba gën a màgg buy feeñ ci képp koo xam ne yaa ngi rendil sa doom ab gàtt gàtt boobu ñu nar a rendi ahkaamuha ana lan mooy atte yi lislaam tëral ci loolu min ahkaamil aqiqa bokk na ci atte yi gàtt bu ñuy rey ci tudd la jiitu salaamatuha wa sinnuha mooy ñu xool muccam ci ay ayib xoolit aajam muy at ay atam ma yujzi'u fil udhiya min as-sinni was-salama min naqsin yujzi'u fil aqiqa mu ne la nga xam ne mooy doy ca tabaski ca mucc gam war a mucc ak la nga xam ne moom mooy war ci ay at yooyu yépp lu mel noonu rek lañ lay laaj ci gàttub tudd lañ lay wax ci tabaski ga moom lañ wax ci gàttub tudd te mooy war naa mucc ci ayib yi nga xam ne bépp gàtt buñ munta tabaski kenn du ko tuddee moo tax mu ne wa ma la yujzi'u fil udhiya la yujzi'u fil aqiqa lépp loo xamee ne nii du mat ci tabaski loolee du mat ci la nga xam ne mooy ab tudd donte ne am na fenn fu mu wuute rek ak tabaski mooy tabaski juróom ñaari nit mën nañ bokk benn nag wala benn giléem ñoom ñépp ñu am tabaski ñoom ñépp ñu am tabaski ngi noonu amma bu dee tudd be benn nag kenn du ko reyal ay ay xale bépp doom bu juddu dañ koy reyal bakkan spécial mi ngi noonu bakkan spécial lañ koy reyal la gën lañ koy reyal it mooy xar gën lañ ko reyal mooy xar doonte ne ni mën sa ko reyal nag wala giléem am na yenn ci mazahib yi sax yuy jàpp ne looloo gën waaye la nga xam ne mooy jumhurul ulama li ñu wax mooy la gën mooy xar sa doom nga reyal ko xar moo gën nga reyal ko nag kon foofu moom wute nañ fa ñaareel bi mooy ta'muha wa it'amuha lan la lislaam gisee sa xarum tudd doom nga lekk ca ak joxe ca ñu lekk yustahabu an tuqsama kama tuqs mi ngi noonu yustahabu an tuqassamu kama tuqassamu al-udhiya sopp nañ xar mi ñu daal di koy séddale ni ñuy séddalee tabaski fa yaakulu minha ahlul bayt wa yatasaddaquun wa yuhduun mooy sopp nañ gàttu tabaski ak gàttub tudd waa kër ga lekk ca ndax feeñal ñoom it mbég ci doom bi yàlla indi ci kër gi kon waa kër ga lekk ci naka noonu ñu sarax ci miskin yi waaye may ci it jege ñaale yi loolu da ngay gis ne lu lislaam gërëm la allahuma lu dul léeg-léeg ñun ñu dem ci maye googu nga xam ne daa waroon a nekk rek lu ñu boyal waaye ñun da ngay gis sunu xare tabaski dañ naan suñu xarit tudd yi baat bi jàmbee ko moom tànk bi njëkk bee ko moom kaza wa kaza loolu moom mbokk kenn amu ci cër kon ci jël may la ci may la ci waaye ab cër moom kenn amu ko ci loolee ñu bàyyi ci xel bu baax ñetteel bi ma yustahabu yowmul aqiqa waaw bis bi ñuy rendi xar mi ana lan la lislaam sopp ñu war koo taxawe yustahabu an yuaqa an zakari bi shaatayni إذ ذبها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن كبشين bokk nañ lu ñu sopp bu la yàlla may doom bu góor nga rendil ko ñaari gàtt ndax ñu ne xasan ba mu juddoo di sëtu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu am bi mu jële ci fatima bintu muhammad sallallahu alayhi wasallam doomu ali yonent bi alayhi salatu wasalam moo ko tudde xasan moo ko rayal ñaari gàtt mi ngi noonu loolu kon dana ko wax ci kanam tuuti mooy doom bu góor la gën ñu reyal ko ñaari gàtt bu dee kattan am na bu dee doom bu jigéen moom benn gàtt ca loolu yi tamit dañuy gis ne sharia lu ci bëri ci wàllu alal dafay jagleel góor duublu la mu jagleel jigéen loolay am ci miiras góor ñaar jigéen benn mi ngi noonu loolu day am ci yu bari yoo xamee ni nii wàllu alal la dañ ko ci ëppale mi ngi noonu ñaareel bi mooy kama yustahabu an yusamma al mawlud yowma sabi'ihi bu dee la ñu sopp moom xale bi dañ ko war a tudd bisum juróom-ñaareel ba mi ngi noonu bisum juróom-ñaareel ba loolu mooy liñ gën a sopp mi ngi noonu da ngay gis lenn sax ci mazahib yi lu mel ne lenn ci mazhab malik ñoom dañuy taral ba ne mun wuruñu ko reyal xar avant bisu juróom-ñaareel bi ndax boobi lay doon lu war ñoom bu xale bi juddoo bu xale bi faatoo avant juróom-ñaareel bi kenn du ko reyal loolu nag da ngay gis ni yeneen borom xam-xam yi gisewuñu noonu yeneen borom xam-xam yi li ñu gise mooy la ñu sob mooy bisu juróom-ñaareel ba waaye mën na koo jiitu comme mën na ñëw gannaawam xale bi daal nañ fexe bu juddoo ñu reyal ko loolu mooy jubluwaay bi gën a màgg suñu ko defee bisu juróom-ñaareel ba nag mooy la gën mi ngi noonu waaye du ne loolu rekk mën a nekk kon bu su juróom ñaareel ba ñu rendil ko ab gàtt wa an yuxtaara lahu min al asmaai ahsaniha ngi noon mooy ahsanuha gannaaw bu ñu tànnal ko ci tur yi tur yi nga xam ne moo gën a rafet tur yi gën a rafet bu dee turu général yi gën a rafet ci lislaam mooy tur bu am abd mi ngi noonu abdurrahman abdullah abdul malik mooy tur boo xam ne yàlla lañ ko delloo mooy tur yi gën bokk na ci gannaaw yi tur yi nga xam ne dafa am ak sant ndax loolu la yàlla tànnaloon suñu yonent muhammad ahmad ak yu demee noonu gannaaw ba loolu turu yonent yi nga xam ne yàlla moo leen tànn gannaaw loolu turu nit ñi baax ñi nga xam ne yaa ngi gàtt nga sa doom jaar ci seeni tànk ne ca jiitu woon mooy sahabatul kiram booy tudde ci doomu aadama it képp koo cay tànne di ko tudde sa doom na doon koo xam ne nii diineem ak jukkoom gërëm nga ko ndax tur mooy gàtt nga képp koy tudde rek da ngaa gàtt nga mel na moom loolu moo tax ba ñu war a góorgóorlu jéem a xool ña ñuy tudde seeni suñu doom allahuma moytu bépp tur boo xam ne islaam da ko aaye te mooy tur bu indi ay bokkaale bépp turu bokkaale islaam nanguwul ñu koy tudde suñuy doom bokk na ci ay sagari sa nag ay kenn buggul ak ay léeg mu deeg ay ñetti fan ak yooyu yëpp da ngay gis doomu aadama dañu koy tudde seeni doom ngiree jàpp ne bu ñu ko tuddee loolu day dund waaye loolu mbokk ci seytaane la jógee mi ngi noonu gannaaw ba mu am ay tur yoo xam ne nii islam terewu ko turu ceddo la waaye soo mënoon daal tànn tur ba gën a rafet mooy la la la la gën mi ngi noonu Cheikh Salah mi ngi may fàttali suñu mbokk ba Oustaz Demba Diop vraiment yal na yàlla jéggal ko yërëm ko mi ngi noonu benn doomam bi mu ñëwee ne da koy tudde doom yi Tahir suñu mbokk yal na yàlla sàmm ko moom it mu ne ko man sama tur bi turu ceddo la tudd ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis ngeen radiyallahu anhu mi ngi noonu donte ne ne demb dara néewu ci waaye nag suñu turu aaday maam la amma bu dee ne nag turub lislaam nga xam ne boo demoon penku jant ba sowu jant ku wax tur bi ñëpp xam ne lii turu lislaam la loolu mooy la gën a baax mi ngi noonu kon ñu tànnal ko tur ba gën a rafet gannaaw ba it wa yuxlaqa ra'su wa yatasaddaqu bi wazni sha'ri sha'rihi zahaban aw fidda aw ma yaqumu maqamuhuma min al umla mu ne xale bi buñ ko watee ci bisu juróom ñaareel bi dañoo war a xool karaw gi lu muy méngool ci or wala xaalis ñu sarxe ko ñu sarxe ko ca rasul sallallahu alayhi wasallam lii di karaw ga jële woon ci xasan xaalis la ko méngaleel sarxe ko loolu boo ko xoolee daanaka ay mille cinq cent du ko passé mi ngi noonu à peu près ay bu matee deux grammes sax day bëri gramme mu xaalis bi ñuy mujj dégg presque ay six cent francs la donc mille cinq cent deux mille loo ci am nga jox ko miskin yi yéene mooy karaw bi ngay jëlee ci sa doom mu bokk benn xikma bu ci borom xam-xam yi di wax loola yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko tudde al aza mooy lor mooy karaw bi mu judduwaale ñu ne bu dee ne xale bi karaw gi mu judduwaale ñu ne lii lor la moom la ñuy dindi pesé ko ak xaalis daa di sul karaw gi sarxe ko kon bu dee lay lor ci moom mooy méngoog alal xale bi moom ëpp na alal looloo tax ba sa doom ngalawaay bu ko jënde xaalis sa doom bu ko jënde xaalis jënde ko ngërëmal yàlla te xel ba doom ñi nga am ci moom ngërëmal yàlla waaye bu dee xaalis moom déedéet doom ji ëpp na xaalis te aka bari ñuy jël investir alal ju dul jeex seeni doom ba doom ji réussir ci musuñ cee lekk ab dërëm kooku perte nga ñaari yoon su ko defee xale bi bépp yoon boo ko teg mu yoonu alal bu yàq diineem nga la waay xamal ne loolu njuumte la bépp yoon boo ko teg muy yoonu wuti alal ca mu yàq diineem njuumte la malheureusement yàlla nattoo nañu ci lu suñu maam xamul woon xale bu ndaw doo nga am 18 ans nga sànni Canada sànni New York sànni Paris sànni Moscou mu dem foofee di dund ci ay yéeféer loolee mbokk da ngay gis jël nga sa doom jënde ko xaalis te doom bi ëppoon na xaalis mi ngi noonu gis nañu ba tey bokk na ci loolu li qawlihi sallallahu alayhi wasallam kullu ghulam rahinatun bi aqiqati bépp xale ñoo ngi ko taylee ca la nga xam ne mooy ab gàttam tusbahu anhu yawma sabi'ihi dañ ko koy rendil bi su juróom-ñaareel ba loola yonent bi alayhi salaam tuddi na rahina borom xam-xam yi am nañ cay ixtilaaf am nañu ne rahina mooy loolu lu lënkoo la ak baay bi daf ko war a def da ko war a topp bu ko mënul léegi bis bu ko mënee da ko war a def am ñu ne rahina mooy suñu borom daal lënkale ashafaa boo xam ne day dox diggante baay ak doom nit ki bu deeyee bàyyiwul lu gën doom ju baax ju koy ñaanal te loolu it dañuy nekk di rammonte yowmal qiyaama ñu ne bokk na loo xam ne mooy tax ramm googee di yegsi ci baay bi mooy gàtt ba nga xam ne nii ah da ko koy da ko koy rendil loolu am nañu ci wax sax yeneen i wax mi ngi noonu ala kulli xaal am na ñoo xam ne nii jàpp nañ it ne rëhina boobee mooy looloo koy muccal ci sheytaan amma buñ ko rendilul ab gàtt sheytaan dana gaaw a am ci man pexe waaye buñ ko rendilee ab gàtt loolee day tax ba mu mucc ci sheytaan wallahu aalam kon mu ne ba tey wa yusamma wa yuxlaqu ra'sahu comme niñ ko jànge sànq ñeenteel bi nga xam ni dañ koo sopp ci xale bi bu juddoo mooy al azan wal iqamatu fi uznay mawlud moo ñu noddu liqaam ci nopp xale bi nga xam ne dañ koo jur istax istaxubba istaxabba ahlul ilm ida wada al mawlud ida wudi al mawlud an yuazzana fi uznihi yumna wa yuqaamu fi uznihi al yusra sopp nañu xale bi bu dee dafa juddu ñu nodd ci nopp ndeyjoor liqaam ci nopp càmmooñ rajaa an yaxfazahu llah min ummi sibyaan ngiri am yaakaar ci yàlla musal ko ci seytaane boobu ñuy tuddee yaayu xale yi wa hiya taabiatul jaan te mooy benn ci jigéen ci jinne yi lënkaloo ak xale di ko mën a yàqal lama ruya min lama ruya la nga xam ne solo nañ ko man wulida lahu mawlud koo xam ne dañ koo jural benn doom fa azana fi uznihi lyumna mu nodd ca nopp ndeyjoor wa aqaama fi uznihi lyusra liqaam ca nopp càmmooñ lam tadurruhu umu sibyaan ku mel noonu day du ko lor mukk la nga xam ne mooy cheytaana boobu ñu tuddee umu sibyaan donte ne ni mbokk hadis bi nekk na lu siiw lool sunu maam yi yëpp dañ ko doon jëfee ndax lu doon jàng seeni téere waaye bu ñu seetloo lu bari ci ulamawul hadis dañ ne ñoom lañ ca wéral mooy nodd ga waaye liqaam ba wérul boo delloon ci lu mel ne silsilatu hadis daif bu Cheikh Nasiruddin Albani da cay wax lu mel noonu mooy nodd ba moo wér liqaam bi wérul waaye a Cheikh Albani rahimahullah xataa ci mujjug dundam delluwaat na ci wax jooju nee na xataa nodd gi sax wérul fekki borom xam-xam yu néew yi jàpp ne nodd gi sax wérul loolu boo gisee ñu koy wax mooy ay sew-sew la yoo xam ne nii ña ca yëgg ci di ko jàng lu néew a néew lañu su ko defee yow ndawal julit bi féeral sunna xam loolu bu dee doy na la xale bi ñaanal ko rek bañ a yëgg ci ay nodd waaye nag bul gis mukk benn imaamu caamin muy nodd ci nopp xale bi wala di ci liqaam nga naan mi ngi def ay bida déedéet loolu moom moo siiw ci téere yi loolu la jàng ci téere yi ba fekk nag xam-xam bu nekk day am xam-xam bu ko gën a sew loolee kon ñu bàyyi ci ñu bàyyi ci xel bu baax mos naa fàttaliku benn ay imam yu mag sax di discuter ci masala boobu kenn ki doon laayee morom bi biir ne ko liqaam bi wérul mu ne ko liqaam bi wérul mu naa kooku de muhammad alayhi salaam doo nga mën a wàcc ne ma wérul ma doog koo bàyyi ñoom ñaar ñëpp faatu nañu rahimahullah yal na yàlla yërëm ñu ñu nit ñu noonu gis ngeen loolee kon ay sew-sew la yoo xam ne nii ñu ciy bàyyiloo xel toujours rawatina rawatina ndaw ñi bi ci mujjoon mooy iza faata saabi'a walam yuzbax fiihi su dee ne ngant am na ba bisu juróom ñaareel ba reyu ñu ci saxa an yuzbaxa fi yawmi rabi ashar rabi ashar su boobaa man nga bàyyi ba bis ba dellu si waat muy quatorzième jour ba nga daal di ciy doog a rendi aw yowmal waahid wala ishri wala ishrin wala nga bàyyi ba bis ba dellu si waat ca ñaar fukkeelu fan ba ak benn nga doog ca rendi wa in maata al mawlud qabla al saabi lam yuaqqa anhu su dee ne nag xale bi dafa faatu avant juróom-ñaar kenn du ko rendil li mu wax fii ci ne xale bi tey masalan ñu ne dimanche tey bi mooy bisu juróom-ñaareel bi amoo nga am ab gàtt ci suba ga loole lu bari ci borom xam-xam yi ngir tegtal yi ñuy jot ñoom dañ ne da ngay bàyyi ba dimanche dellu siwaat su dee ne dimanche ba dellu siwaat na amoo it nga am ca talaata ja wala àllarba ja bàyyil ba beneen dimanche ba te mooy bis dimanche ba nga ko waroon a tuddi da ngay bàyyi ba dimanche ba jëli soit imma quatorzième ba wala vingt et unième jour ba loolu nag mbokk jullit tegtal ya nga xam ne moo ca root borom xam-xam yu bari dañ ne du tegtal yu dëgër ba nga xamee ni li ñuy wax mooy sopp nañu ñu xaar ba bisu juróom-ñaareel ba dokkoo rendi amma bisu juróom-ñaareel ba bu passé foo ko amee rek rendiral sa doom foo ko amee rek rendiral sa doom loolee mooy la nga xam ne mooy mbir bi li mu mujje mooy xale bi bu dee daa judd daa di toog ba bisu juróom-ñaareel ba wala yàlla bàyyiwu ko fa bisu juróom-ñaareel ba ñu ne ko mel noonu kenn du ko rendil naam loolu mooy li gën a siiw ci mazhab Malik mooy bépp xale bu amul juróom-ñaari fan kenn du ko rendil waaye borom xam-xam yu bari ñoom dañ ne bépp xale bu indi bakkan dañ koy rendil même bu doon daa juddu tey dee tey dañ koy rendil nga noonu am na ñu gën a sori ñooñu sax am na ñoo xam ne dañ ne bépp liir bu ju boo xam ne dañ koo avorté waaye wóor na ne def na lu ëpp ñeenti weer ci biiru yaayam kon def nañ ci ak ruux yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na xale bi bu passé ñeenti weer yàlla da koy may ruux kon mi ngi doon dund ci biiru yaayam ci biiru yaayam la faatoo maadaama am nag ruux ku mel noonu dañ koy rendil jox ko tur mi ngi noonu ama bu doon mazhab Malik wax naa la la nga xam ne moom moo ci nekk mooy fokk mu indi bakkan fokk mu dund ba la nga xamee ne ni moom mooy juróom-ñaareelu juróom-ñaareelu fan ba waaw jàpp na mbokk dañuy xool ba xam duñu am ay laaj yu ñu mën a dimbali ko ba waxtu yu jot wala mu am lenn lu ñu jël ci bind bi ci gannaaw ala kulli xaal mi ngi noonu ci lu aju ci wàllu tudd bi ana yan laaj yéen ci laaj wala baat yiñ jot a jàng it lu ci xam ne nii am na ci ak lënt insha allah bu dee na am na naam bismillah naam waaleykum salaam wa rahmatullah na ko waaw ala kulli xaal nañu xam ne bàyyi daal moo am droit tudd doomam ku ko neex amaa nag bu dee da nga ne dañoo négocier ak moom ba convaincre ko mu tudde ko loolu moom amatu luñ ci wax waaye daal nañu xam ne kenn amul droit di ko forcer na ko diw nga koy tudde du bàyyi boppam du kenn ku mën a doon moo jur doomam baayam ba mu ko juddee ba mu ba mu juddoo tudde ko ku ko neex moom it doomam la moom la lislaam sant mu tuddee ko ku ko neex mi ngi noonu léeg-léeg it moom bu ko neexee tur yi mu mayee ko masalan nga ne sa soxna tur bi may naa la ko tànnal ku la neex nga tuddee ko su demoon ci bàyyi mit na ko bàyyi doom bi seetal ku la neex ñu tuddee ko loolu du problème waaye daal nañu xam ne moom moom moom doom bi boppam mooy tànn ku ko neex kenn amul droit forcé ko ci loolu amma nag bu ñu négocier ak moom ba mu d'accord ah loolu l'islam du ci wax dara wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah aleykum salaam ndax nit day jël ci turandam juróom-ñaari jukko loolee moom suñuy aaday maam la suñuy aaday maam la allahuma lu dul tur moom day topp borom ba dañ naan Omar ibn Khattab di ko yàlla mayoon ci ay firasa mooy seetlu daana xool nit na ko xanaa yu nangam nga tudd fekk muy loolu te tur léeg-léeg nga dégg rek wallahi benn waay ñëw na ci man ne ma di ma laaj problème miraas mu ne ma suñu miraas bi yëpp njaxas moo ko moo moo ko yàq ma ne ko sam xel njaxas yàqul dara bàyyi njaxas moo yàq seen miraas bi moo ko ku loolu loolu mbokk da ngay gis ne ay njuumte la amoon nañ benn ku ñu dëkkaloon ci Pikine mi ngi tuddoon Albert da daan naan ba mandi mu ne man Albert du may def ko du ma naan beer yaa ngi dégg yaa ngi dégg ala kulli xaal donc que doomu aadama bi daal ci gàttal mooy war ngaa tànn ñu ngay tudde sa doom amma nag pour wane ne day jël ci turandoom juróom-ñaari jukko déedéet loolee nekkul loo xam ne nii lu sax la wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam ah ah waaw waaw waaw waaw waaw moom it mu jaar ko ah jeex na ah ah mi ngi noonu jeex na jeex na ku dul julli du woor nga tudde ko sa doom doom ji màgg moom it nee na du julli du woor ah tooñu tooñul ala kulli xaal mbokk julit sa mbokk lu mu la jege jege sa frère la sa baay la sa kum mën a doon su dee ne diineem rafetul jukkoom rafetul bu ko tudde sa doom siq leen leneen mais doom bi ak xam la moom ci boppam du sa ak yow ak doom ji la ñu tànnal ko tur bu baax su dee dañ koy tudde nit ñu tànnal ko koo xam ne nii yéene nga mu mel na moom ngir baax loolee dañ ci war a bàyyi xel bu baax mi ngi noonu looloo tax ba léeg-léeg ñuy jot ay question ndax ku am xaritu chrétien war na ko mën a tudde doom loolu mbokk kenn du ko def sa doom bu màggee gis turu doom jëm ci église ba sa doom bu màggee gis turu doom nekk di teg sàngaraam ak yëpp di naan loolu fekk loolu baaxul su ko defee daal loolu ñu bàyyi ci xel wallahu aalam naam Cheikh Ousmane aada boo xam ne yaay bi day tudde baay bi tudde day gis nañ ko ci làkkat yi waaye nañu xam ne tur ba lislaam saxal moom mooy turu baay ba tur ba lislaam saxal moom mooy turu baay ba loolu moom mooy mbir bi amma yeneen ay dàkkantal yoo xam ne dañ ko cay def loole moom beneen mbir la waaye daal la gënoon moom moo di ne baay moo am droit tudd doomam képp ku koy woowit wurloo ko woowi lu dul tur ba nga xam ne moom la ko baay bi tuddi lii daal moom la ñu xam ci lislaam li ci des ay ay aada la wallahu subhanahu wa taala aalam la loolu kenn waru ko def yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafay tere góor ñu koy nuru nuru la jigéen wala jigéen di nuru nuru la góor looloo tax nga jël sa doom di ko jox tur bu jigéen loole loolu kenn du ko def masalan tey góor a ngi nii ñu ne num tudd ñu ne faatu ñu ne faatu xale bu góor ñëw ana faatu muy góor xam nga loolu mbokkul rafetul naka noonu yi tamit tey jii même bu doon muhammad alayhi salaam ki gën ci mindaafan yi benn jànq génn ñu ne num tudd ñu ne muhammad ndax loolu rafet na la wallahi naka noonu it sëriñ bu mu mën a doon ak ku mu mën a doon ngalla waay doom bu jigéen kenn du ko tuddee góor doom bu góor kenn du ko tuddee jigéen allahuma ludul bu demee ñàkk ñàkk ba munta ñàkkit lum bon bon nañ cey def ndey boog ñu ne ndey diw ñu xam ni jigéen la bu ko déggee xam ne ndey nangam mi ngi noonu waaye tur bi directement rek tudde nañ ko Ali tudde nañ ko Omar Ousmane ak Aboubacar fekk lan la jigéen la déedéet Zeynab la tudd Mariama la tudd Fatima la tudd ndax fekk góor la déedéet loolu kenn du ko def wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam bismillah ala kulli xaal ki nga xam ne dafa am doom bu góor waroon ko reyal ñaari gàtt li ñuy jëkk a wax mooy ñaari gàtt yi dañ koo sopp dañ koo sopp ba sax da ngay gis ne du mazahib yépp ñoo ko saxal ndax lii ñuy gis nii ne yonent bi dafa reyal asan kabshayni am na riwaaya yoo xam ne benn gàtt rek lay wax ba presque looloo gën a siiw ci mazhab Malik ba lu bari suñu ngénte yi am fi ne gis benn gàtt la ñuy rey su ko defee loolu lu ñu sopp la borom xam-xam yi dañuy wax ni lënkaloowul ci ñu rey leen ci benn bis la nga xam ne mooy sunna bu feddali ba mooy gàtt bañ koy reyee comme li yonente bi alayhi salaam kullu mawludin rahinatun bi haqiqatihi ca gàtt bañ koy rexal waxul ñaari gàttam haqiqatayhi déedéet ab gàttam su ko defee mën ngaa rey benn gàtt bu la yàlla mayoon fii ak un an sax nga am beneen nga rey ko lu mel noonu it question bi mel noonu dañ ko posé ci ki nga xam ne moom déggoon ni ne moom kat bàyyi bi reyu reyulu ko woon ab gàtt ku mel noonu mën nga jël ab gàtt rendil ko sa bopp ku mel noonu mën ngaa jël ab gàtt rendil ko sa bopp képp koo xam ne it sa mbokk la jegañaale la wóoru na la ne kii kat moom baayam rendilu ko woon gàtt ngir ngant yoo xam ne am na amul woon wala mi ngi nekkoon ci leneen yàlla may na la bokk na ci jaamu yàlla nga jënd ab gàtt rendil ko xale boobee loolu lépp ci buntu jaamu yàlla yi ci la bokk wallahu subhanahu wa taala alam naam mbokk bi doon yëkkati fële naam naam ñu fekk ne waaw mu ne ñu nekk mu ne am na liir bu judd ci tabaski waaw mu ne tabaski ñëw li islam wax ñu jël doom ji ba pare doo la tabaski ala kulli xaal yaakaar naa ci darsu bi passé laajoon nañ ko fi moo di ne ne xale bi nga xam ne daa tombeek tabaski baay bi su amee ñaari xar dañ naan ko rendilal tabaski gi benn reyal rendilal sa doom benn su dee ne amul lu dul benn xar loolee lu bari ci borom xam-xam yi ñoom dañ naan ñaari jaamu yàlla la yoo xam ne duñ ko tënk ci benn benn xar bi nga am tey la tabaski fañi tabaski yi bu dee jàpp nga ne day romb te yow doo am xar rendilal tabaski gi heure bu jàppandee nga rendil xale bi su dee ne kër gi nga nekk am na ko fa nekk ngeen bokku njël ngeen bokku njël am kenn ci ñoom koo xam ne dafa rendi ci kër gi su boobaa yow boo amee benn xar mën ngaa rendil sa doom ndax bépp famille bu dëkk même bu ñu doon cinquante sax te bokk benn njël heure boo xamee ni nii kenn ci ñoom rendi na rendi googu dana yóbbaale waa kër gi yëpp loolu daal kon lañu mën a wax ca wàllu googee bilaal noonu da jotagu la waay ah waaw ah waaw te nga dem nodd rek ba xam ñu seet ndax li ci li ci des question yi dana dana dana dana am ci ci ci li ci des incha allah non baax na incha allah incha allah waa xam naa bu doonte ne mbokk yi ama dinañ yeneen laaj yu ci aju bala trois minutes yi des léegi wala quatre bon ala kulli xaal bokk na léeg-léeg ay laaj yu ñuy laaj mooy ñenn ñi nga xam ne dañu nekk bitim réew ca dañuy am problème pour rendi foofu nañu xamee ne xale bi rendi giñ koy rendil nekkul ne dafa war a nekk fa xale ba nekk donc yow mën ngaa nekk Amérique wala France nga am tudd ñu rendil la sa xar fii ci Sénégal léeg-léeg it ay njuumte di am mooy ñu ñëw ci ngénte li mbooloo mi yépp toog ñu indi xale bi war koo tudd nga gis imam bi ne fokk il faut ñu dem ñu wat ko il faut ñu wat ko bala ñu koo tudd mbokk loolu ay njuumte la xale bi keroog ba mu juddoo mënees na koo tudd ca loolu la yonent bi alayhi salaam mujj a def yonent bi sallallahu alayhi wasallam doomam bi ko yàlla mujj wërsëgal mooy ibrahim alayhi salaam dafa xëy na sahaaba yi biig ci guddi day yàlla wërsëgal na ma doom tudde naa ko sama baay ibrahim alayhi salaam loolu kon sopp nañu tur boobu ñu bàyyi bisu juróom-ñaareel bi da ko siiwal waaye bisu juróom-ñaareel bi bokk na suñ mag ñi lañ doon jàngale mooy watara mooy wat tudd rey ñu ne nag ñoom nañ ko jàngale noonu watara rek loolu dafa war a lënkaloo noonu déedéet mbokk julit xale bi mënees naa xëy joxe tur bi rendi gàtt bi doog koo wat mënees nañoo xëy wat ko rendi gàtt bi doog a siiwal tur bi ala kulli xaal mbokk ñetti jaamu yàlla la yoo xam ne lënkaloo wuñ ci dara lépp ci ñetti yooyu mën naa jiitu moroomam problème bi yëpp mooy nañ ko def ci juróom-ñaareelu fan bi ca lañ gën a sopp leneen du dul loolu waxoon nañ ko ci biir dars bi wallahu subhanahu wa taala aalam bokk na ci it ay laaj waaw waaw basa bisimilah waaw waaleykum salaam wa rahmatullah ñiy tudd seen doom huitième jour borom xam-xam yépp dëppoo nañ ci hadis yi ñuy jàng mooy bisu juróom-ñaareel bi la ñuy tudd doom daa fekk nag lenn ci borom xam-xam yi rawatina ci mazhab malik yi ñuy gën a siif yi ñoom dañ naan bis bu jëkk bi su dee ne amul guddi bis boobay kenn du ko considéré masalan tey jii mazhab malik ci bal bu ma waxee mazhab malik waxuma malik ci boppam mais ñi koy askandoo tey tey jii bu doon tene ne xale bi dafa judd woon tey jii ñi ngi nekk ci dimanche loolu lañ jàpp xam ngeen al altine bi dugg na bu jant bi soo rek altine bi dugg na kon bu doon xale bi dafa judd nii ci guddi gi nii kon dañ naan altine ta dugg na dimanche lañ koy tudd mooy juróom-ñaareelu fan bi mais ñoom dañ ne bu dee fajar daa jot xale bi doogu judd su boobaa dañ naan xale boobu guddi gi paase na bëccëg boobu kenn du ko considéré kon dañuy jàpp ne premier jour am mooy talaata lundi lañ koy tudd bu dee lu bari ñuy askanoo ci yeneen mazahib yi ñoom dañ ne ki judd ci guddi gi ki judd ci bis bi yépp ay am maadaama na judd na lundi dimanche lañ koy tudd loolu kon ay ixtilaaf la allahuma bu ñu xoolee daanaka li ëpp tegtal mooy xale bi bis bu mu judd dañ koy jàpp ne premier jour am la ak waxtu wu mu ca judd lundi la judd la gën ñu tudd ko dimanche dimanche la judd la gën ñu tudd ko samedi waaye nag tamit comme téere yi fi jiitu lu ci bëri ñoom gisin bi sénégalais yi gis lañ gis loolu amul benn problème léegi ay xale ahlu sunna di ci xëccoog seen waajur jëru ko ixtilaaf la rek bis bis boo ko ci tudd baax na wallahu subhanahu wa taala alam amma ndax présenté sa soxna loolu moom bu soxna si bu muuroo na mu war a muuroo dara nekkul nga won nga wax ko say xarit wax say mbokk ne kii mooy sama soxna loolee mi ngi noonu soxna sahaaba yi xamante woon nañu loolee kon dara newu ci wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam yaakaar naa waxtu bi jot na wala ala kulli ah des na benn minute waaw kon benn minute bi mooy bokk na ci ay aada yoo xam ne dañ ko jàng ci téere yi dañ naan xale bi gàttu ngénte bi kenn du damm ay yaxam gàtt bi buñ koy fees dañ koy génne yax yax yax buñ koy togg noonu lañ koy toggee ngir damm yax yi day gàtt ga gu ñëw ci xale bi loolu nag mbokk ay aada la yoo xamee ne nii dem na ba rot ci yenn téere waaye lislaam xamut loolu lislaam xamut loolu moo di ne gàtt bi daal buñ ko xisee ba rendi rendi nañ ko parce que yow la ngay bañ ci damm yax di gàtt bi yaa ngi ko rendee waay li yaa ngi ko feesa waay teqali yàpp wee waay kon kay damm yax yi amul benn problème yaa ngi ci dégg lii mbir bi rek mooy di suñu borom wax borom bi nee na lan yanaala allaha luhumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum suñu borom mu ne soxlawuma yàpp bi soxlawuma deret bi lay jubluwaay dëgg-dëgg li yàlla lay considéré ci tabaski di ko considéré ci gàttub tudd mooy lan yéene bi nga am jébbalul sa borom def ndigalam ba def jëf jooju loolu rek mooy mbir bi yàlla na yàlla sàmm ñu sàmmal suñu njaboot nangul ñu mboolem suñu tabaski ak suñuy tudd wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain